ñuy wax ne que muy mouvance présidentielle bi nga xamante ne gis nañ ne da am ay xëccoo ci biir locali localité yi jëmale ci élection yi ñu dëgmal noo leen gisee loolu ak noo leen koy dundee en tant que politique. jërëjëf dañuy euh, ci dorteel euh, sant euh, yàlla bi nga xamee ne consigne yi kilifa kilifa coalition bi joxe ñépp topp nañ ko ndax euh, pour l'essentiel ci téeméer ak juróom fukk yu topp yi nga xam ne mooy communes yi nga xam ne ñoo nekk ay communes yu bokk ci suñu coalition ak localité yu nekk suñu coalition euh, ñëpp déglu nañ consignes yi ñi ngi déglu li nga xam ne mooy ndigalu président pour ñu xam nu ñuy doxale waaye nag du tere euh, militants yi moom ku ci nekk fa nga dëkk am ñu lay jàppale naan kii lañ bëgg mu doon candidat bi loolu mooy wane ne tamit euh, sunu coalition am na ancrage maanaam sax na ci biir askan wi ànd na ak population yi ba nga xam ne tamit dinañ am ay yéene ci yenn leader yi ne ci localité yi ku ci nekk say ñooñ di buggu ñu tabb la candidat coalition bi. benn bokk yaakaar rawatina mën naa cité muy parti président de am ay xëccoo yoo xam ne ci biir localité est-ce que loolu du leen andi jafe-jafe ngir jot élection ndax ñaari nit bokk ci benn parti tamit jafe-jafe la xam nga loolu élection local moom euh, noo def xëccoo am moo tax ma ne la lii nga xam ne ambition yi dina am lépp terewul li ëpp vraiment ci ci ci ci suñu coalition bi ñëpp daal daanaka topp nañ li nga xam ne mooy conseil bi mooy dallu te déglu ba nga xam ne kilifay coalition bi dina joxe tegtal ñu xool ni ñuy ni ñuy ni ñuy doxale loolu munuñ lu dul sant ji léegi nag mu am ay militant ak ay ñoo xam ne dinañ yëngu yëngu boobu mun a ñàkk ndax politique moom soo demee ci localité yi faw rek ku nekk wane sa bopp euh, xaw a jeexu wane li nga bëgg ci wàllu politique soo ko mun a def yow nag say nit tam dinañ la ko defal loolu mooy li fi xew. waaye yàqul dara ci démocratie yàqul dara ci doxalinu mbir mi. voilà toujours ci local yi tey wax nga sànq ni am ngeen coalition bu mag mais gis nañ aussi fan yi ñaari coalition yu mag yu juddu ci opposition bi mu yeewu askan wi yeewi askan wi ak coalition bi nga xamante ni PDS mooy pratiquement mën naa ne mooy noyau bi est-ce que nekkul menace ci Benno Bokk Yaakaar. waaw xam suñu coalition ma yokk ci yeggal yi li ma doon waxtaan léegi soxna si dafa am expérience. ba pare mooy coalition bi gën a yaatu ci histoire Sénégal ba pare am coalition bi gën a gudd fan ci histoire Sénégal car car macha allah soo seetloo loolu nag li ko waral mooy leaderu coalition bi dañoo jiital Sénégal ci seen bopp su ñuy dem dañuy xool intérêt général dañuy xool li nga xam ne ñëpp ko bokk ak nu ñu koy doxalee ba nga xam ne démarche bi dina yiw dina mën a boole li nga xam ne mooy intérêt général moo tax moom longévité. ba pare coalition bi dafa am projet politique projet politique bi dañ ko tagg euh, defar ko tàggat ko bu baax saytu ko teg ko ne dañu bëgg a développer réew mi ci anam bii teg ko nag ci ay principe nga xam ne yi ci gën a fës mooy équité territoriale ak équité sociale ak la territorialisation de l'action publique nga xam ne ne ci wàllu gis-gis ànd bi du àndum nguur rek àndu liggéey réew mi la moo tax ñi ngi may laaj ne dañoo ànd ñun tiituñ loolu ñun sénégalais yi lañuy waxal askan wi la ñuy waxal fexe am ci représentation yi ci localité bu nekk ci Sénégal ay liste yoo xam ne dinañ doon des listes yoo xam ne liste yu yu baax lañ yu mun a waxal coalition bi mun a am crédibilité au niveau des localité ba nga xam ne suñ demee janvier dinañ gañe comme ni ñu gañe woon mais amuñu vraiment di sóoraale ay tour ak ay yooyu moom wax dëgg yàlla ah, amul solo surtout nag que ñi nga xam ne léeg-léeg ñu ànd seen ànd day jaxasoo bëri coow et puis euh, waaw doy na war daal moo tax ku xam ko hmm. euh, opposition xam ni toujours day am xiro ngaayam parce que idéo yi bokkuñu mais quoi que l'on aussi man je pense que est-ce que jar na minimiser opposition boo xam te ni am na parti au pouvoir bu fa nekkoon muy le PDS am na ki jël deuxième derrière le président Macky Sall tey mi ngi dans l'opposition est-ce que yow ni nga koy waxee nii ce sera dina yombee noonu. Eh, da ngaa kay ki jël deuxième kay. ne pas ah non mais d'accord ki jël deuxième rallié na mais ki jël troisième tey. Ah, ma ne te nekk chef de l'opposition. yow daal daal mel ni mbir mi waaw xaw nga ay sa bopp. mooy loolu mais ba tey. Ah, mais terewul. Uh-huh. fas lu mu daw ñu làbbaliku. Uh-huh. mbir mi sunu coalition yaatu na ki jëloon deuxième ci président yi mi ngi ak ñun. élection yi élection locale la sénégalais yi ñooy tabb nañ wax ak sénégalais yi rek waaye wax dëgg yàlla di sóorale lu ay beneen coalition ak ñeneen li ñuy wax yooyu am na solo waaye li ëpp solo mooy nan la ñuy jëflante ak askan wi ndax Sénégal euh, doon na bu mat boo xam ne fekk ñu ngi jàpp ne li ñuy def duñ ci sóorale sénégalais yi dinañ juum te li ma jaaxal nag dafa am pàcc ci opposition boo xam ne Euh, yaakaar naa ne mun nañoo gën a xoolaat seen diggante ak ni ñuy jëflante ak askan wi ci wàllu wax ak ci wàllu jëf. Mm. waaw parce que askanu Sénégal dafa mat waaw ah, dafa am kenn mënu koo kenn mënu ko foye daal ci wàllu démocratie ak ci wàllu jëflante urne yi ñoom ñoo fay dem ñoom ñooy voté li leen doy moom la ñuy voté li leen doy duñ ko voté loolu mooy li am solo waaye ay xupaate ak yori tur ak toog ndakaaru ci média yi di wax baax na de ci la bokk. waaye li ëpp solo mooy sénégalais yi seen bopp xool li nga leen di proposé ak li ngay jëflante ak ñoom mu doyul leen ñu ànd ak yow su leen doyul ñu dumo yi la ñu ngi sant yàlla bi nga xamee ne saa yu ñu demee élection dinañ jëflante ak ñoom waaye majorité président dinañ koy wóolu li ko waral nag résultat la mooy résultat yi nga xam ne président de la république ak majorité dañ koy am ci gox yeeg gox gox goxaan yi parce que loo ci mun ci wax suba ba ngoon jot dinañ la jiiñ lu ne la juñ waaye kenn ci opposition bi newul président Macky Sall ak majorité am amul amul résultat waaye wax nañ dëgg résultat yi kenn du ko mënta weddi. voilà ñu ñëw un peu peut-être ci kii peut-être l'actualité mooy li nga xamante ni actuellement nii mooy défrayer la chronique mooy l'arrestation de Sonko l'arrestation de kilifa ak euh, Simon affaire de trafic de visa gis nañ ni démb mouvement bi def na benn sortie accusé Macky Sall na moo nekk. derrière benn genre complot la boo xamante ne Macky Sall moo nekk derrière yow noo ko jàngate waa jàngat bi ñu ciy def mooy jàpp ne politique dafa am euh, leneen am ndax ay parti politique yuy wax ci politique ci ni ñuy développé gox yeeg goxaan yi ab mbir la ci ni ñuy développé réew mi ab mbir la waaye bëgg a jël débat politique yemale ko ci sa waxu bopp yow ak ci sa waxu sa bopp yow sa diggante yow ak justice loolu leneen la loolu dafa mel ni dañoo bëgg a soppi sunu débat public ak sunu débat politique yóbbu ko ci ay mbir yoo xam ne concerné wul sénégalais yi seen yoon nekku ci waxuma la sax vidéo yi ñu fi wane ndax loolu yi tamit euh, man duma ko yéene kenn ñuy génne say mbiru biir nekk di ko fësal waaye nag nga jël say mbiru biir néeg yow bokk ci taqal am réew loolu kenn du la ko may kenn du la ko may sénégalais yi am nañ fulla ak fayda bu mel ni duñu nangu kenn di leen imposer loo xam ne kenn mënu ko nangu ñëpp xam nañ ne jaadu rek waaye video yi ñu fi gis ak président de la république lu ñu jote ku nekk na nga jël sa responsabilité loolu mooy li am solo waaye ñu ñaawlu li nga xam ne ay homme politique yu ne dañoo bëgg réew mi ñoo décidé ne léegi daal parce que ñoom noonu lañ gisee mbir mi justice su Sénégal jàpp nañ ne baaxul ñoom dinañ créer seen justice su bopp dinañ xool ñoom ñoo ñuy wax léegi liy dëgg ak lu dul dëgg liy yoon ak lu dul yoon ñun daal yoonu réew mi dañuy xool montre Y'en a marre ko fa régler suñ ko fa réglé wul ñu menacer république bi menacer la majorité menacer sénégalais yi loolu kenn du leen ko may te dañoo juum ci réew mi ñu ko seexal. parce que ñoom dañoo jàpp ni justice bi dañ ko manipuler. dama ne xam nga justice ci réew mu doon sunu réew ak beneen réew bu mu munti doon justice bu parfaite moo amul ci àddina. am na dëkk yoo xam ne soo amul njëgu am avocat bu baax daanaka kenn du laate mhm. am yeneen yoo xam ne am na yeneen i pàcc yu soxe suñu justice du justice su <laughs> suñu borom dafa war a wax le droit selon la loi du Sénégal loolu su def liggéey boobu au nom ci askanu Sénégal lañ koy def suñu justice mooy tax ñu am élection yu baax ñoom ñoo koy valider ñoom ñooy organiser élection yi justice bi justice Sénégal justice Sénégal mooy appliquer loi yépp yi nga xam ne moom la ñu voté ci réew moo koy diir lu droit justice Sénégal ni ñu defee les listes électorales ak ni ñu defee la cartographie électorale du pays ñoom ils sont essentiels dans le dans le dispositif ainsi de suite donc yoonu Sénégal gën na yaatu ay affaire de mœurs ak ay affaire de petit trafic suñu buggee tënk suñu réew nag ci seen agendar politique ñoom dafa fekk dañoo xeeb sénégalais yi xeeb seen maturité démocratique xepp seen conscience de l'opinion waaye ñun si suñu wàllu bopp au plan militant ndax ñun nanguwuñ kenn gën nga ñu bëgg réew mi ñoo dul bàyyi kenn sax nag wax dëgg yàlla ngay foyee suñu legs démocratique duñ ko foye te duñu nangu kenn di ko foye su ko defee dañ leen di woo ñu ñëw ci dal defal leen un appel à la parce que du opposition bi yëpp ay def loolu. benn pàcc opposition bi. mais gis nañ aussi ci trafic petit trafic bi ñu bi ngay wax noonu bi nga wax ci passeport yi tamit est-ce que léegi petit trafic la ndax ñaari député yoo xamante ni ñu ngi ci majorité bi te tamit euh, lu nan la mën a demee ko passeport yi ñu valider leen muy jóge ministère des affaires étrangères est-ce que loolu tamit mën nañ ko qualifier de petit trafic. am réew soo amee yéene jiite ko. da ngay xalaat ca xëyu ndaw ñi xëyaat xalaat ca nañuy tàggate xale yi xalaat ca nañuy defe développement local nga xool exemple boobu ndeysaan Sandiara nga xam ne le maire la c'est le maire modèle seriñ Gueye Diop nga xam ne ni mu transformer sa commune gis-gis la ak vision loolu mooy élection locale yi jëm da ngay xalaat ci environnement ba su le développement durable waaye ne am réew donc ko bëgg a téye duñ la dégg lu dul ci fitna ak wax ju ñaaw duñ la déglu lu dul ci ay mënaas ak fitna duñ la déglu lu dul ci ay waxu ay voilà petit trafic noonu rek la mën a tudd ndax Sénégal gën na rëy loolu ëllëgu Sénégal gën na yaatu loolu ëllëgu Sénégal laaj na fulla bu ëpp loolu fii ñu ñu bëgg a tëj ci waxu petit rendez-vous politique duñu ko nangu suñu amee projet politique nañ ko indi ñun dañoo ànd ak ay kilifay politique yu yaatu wax nga ko deme demee nii Idrissa Seck Moustapha Niass le parti socialiste Aïssata Tall Sall li am expérience politique majeure ci réew mi mu jaral leen engagement pendant des années ñi ngi ànd ak majorité bi ku ci nekk mënoon nga prétendre jiite réew mi waaye dañoo jiital Sénégal ba pare teg ci gis-gis boo xam ne dépassé na sunu génération deux mille trente cinq la jëm loolu mënoo ko dendale ak ay waxu ay waxu yu kenn xamul loolu du lu intéressé Sénégalais yi Sénégalais yi leen intéressé mooy ni ñuy génnee ci mbas mi ni ñuy fexe ba génn ci relancer waat sunu koom-koom mu jëlaat trajectoire de croissance ba mu jëloon ni ñuy fexe ba ci biir relance boobu. gox ya gox-goxaan yi gën cee jëriñu ni ñuy fexee ba xëy ndaw ñi ak processus d'industrialisation bi gën a yaatu loolu yépp ñu teg ci ay politique ak vision bu leer boo xam ne ci première pàcc bi ba fi ñu toll nii résultat yi ñëpp ci teg seen bët kenn contesté wu amul benn parti d'opposition bu taxaw ne président Macky Sall ak majorité am amuy résultat amul parce que sañu ñu ko wax ngeen xool ci Afrique ba mu daj wala ci àddina bi un régime avec un chef d'État comme le président Macky Sall qui a réussi en moins de neuf ans à bâtir un nouvel aéroport jox réew ma benn compagnie aérienne avec près de sept avions ou plus pour son patrimoine lu mu mësta am jox ko train express régional jox ko un réseau autoroutier exceptionnel bi nga xam ne le symbole le plus abouti mooy Ila Touba soo ci tegee les ponts de Rosso le pont de Foundiougne ak le pont de la Casamance nga xam ne réew mi am na avant Macky après Macky Sall loolu nag fekk nit ñi nanguwuñ ko dinañ am jafe-jafe parce que jafe-jafe bi mooy il va falloir que ñu wax dara te soo waxul ci pont yi ne waxoo ci defar réew mi waxoo ci njàngu xale yi ci waxu passeport ak waxu ay yu kenn xamul ngay wax rek ay waxu détail or politique nag du am pox politique am réew fukk ak juróom benn million nit ci réew ak seen avenir yu doom doo ko fooye doo ko dugal ci waxu caaxaan te sénégalais yi nag nit ñi bàyyi xel li fi génn ci fan yi ñëpp gis nañ ko dañu ne nag ci état de droit ci jëlee ab mbir ku nekk dañ cey màndu waaye vidéo yi ñun ñëpp ko gis te nit ko ñoo ko bokk gisandoo waaye li ci des nag euh, mooy di invité nit ñi à la retenue républicaine ndax euh, république ak ay institution soo amee chance bu di la jox kàddu ñu di la déglu da war a delloo cër ña lay déglu daal di natt bu baax euh, sérieux bi ak dayo bi nga xam ne moom lañ la jox ci confiance pour di déglu autour de sa question liggéey nga wax ne président Macky Sall koy def ci réew mi tamit léegi nan jàngatee rapport ANSD bi génne du toll ko juróom benn million xiifal ñu leen di sonal la ak waaw fas lu mu daw daw du tere ñu labali ko kenn newul ne réew mi amatul benn jafe-jafe te amul suñu mbokk ak ay compatriotes yu nekk ci ay jafe-jafe déedéet waxuñu loolu waaye liñ la wax nii mooy wane yoon bi ñuy jël ba tabax réew mi ba loolu jóge fi ndax liñ lay wax nii toog nañ fi juróom benn fukki at ak lu tegu kenn defu ko fi ñu toog ci diggante moins de dix ans loolu jëmm ñu si teg sunu bët donc faw ñu taxaw <laughs> seetlu xool li nu mu demee ba mu mën a demee nii ak nan lañ mën a def ba mu gën a ñoŋ gën a yaatu gën a gaaw terewul nag suñu seetloo ci wàll ñuy dund ndóol ci réew mi ah, su population bi yokkee noo def ñi nga xam ne dañuy dund ndóol dinañ gën a yokk ah. waaye mun nañ xool ci population globale bi ban pàcc moo ciy dund ndóol loolu dañu ne dafa wàññeeku ci réew mi diggante 2011 ak 2018. Eh, dund gi cher na de. terewul dund gi cher mhm. na fan yi weesu. Mhm. loolu ministre bi ci euh, addu wax na ci joxe na ci ay explication président de la république ak gouvernement mu itam jël liñ ci ay mesures. ba nga xam ne dinañ mën a enrôler encadrer yenn prix yi ci ceeb bi ak yenn yi ba nga xam ne nañ ko maîtriser loolu nag du guléet ndax président de la république foog naa moo fi njëkk a organiser wu jël ay mesures yoo xam ne diggante 2012 ba suñu joon yàlla tey tey jii prix wu diwlin diw gi prix wu ceeb bi prix wu gaz bi prix wu meew bi benn ci yokkuwul ci daanaka fukki at dafa fekk kay li ñuy dund doon loo xam ne crise bu exceptionnelle la muy crise euh, feebar bi touché euh, logistique ak fret mondial yenn pays yi nga xam ne ñooy exporte seeni seeni seeni seeni mbir ñu xaw ko téye tuuti rareté boobu yëpp ak diverses ak ak yu bëri daal yoo xam ne am na incidence ci njëg mujj tax ba yenn prix jóg waaye état jóg na defaat ci ay ressources te du ci jóge ndax président Macky su amee benn mandarga bu mandargaal nguuram ak régime mooy dafa ne waaw développement comme nu ma leen ko expliquer sànq les infrastructures waaye daf ci teg ne il faut ñu doxee ñaari tànk benn bi mooy équité territoriale beneen bi mooy équité sociale équité sociale boobee moo indi bourse yi sécurité familiale yi moo indi couverture maladie universelle moo indi hôpital bii nga xam ne te dernière génération de même niveau que Dakar moom lañ nar a inauguré suba incha allahu fële ca Touba bu mel noonu lañ inauguré yàggul dara Kaffrine bu mel noonu lañ war a inauguré Sédhiou lii mooy li nga xam ne mooy gis-gisu président de la république ak majorité am donc du ñu nangu kenn bu ñoo tënk ci ay mbiru traficu passeport ak visa Sénégal ëpp na loolu te du ñu nangu kenn tamit di ñu tëj ci ay affaire de mœurs à la justice loolu Sénégal ëpp na ko doole Sénégal ëpp na ko maturité politique. mais justement peut une benn benn question gis nañ ci conférence de presse bu Y'en a marre ay yenn opposition ñëw soutenir leen yow nan nga ko gisee Ousmane Sonko Barthélémy Diaz Ousmane Sonko Barthélémy mm-hmm. ak ñëw ñëpp fa dajo pour bëgg waxtaan ci mbiru trafic de passeport noonu lañ toll ci seen gis-gisu politique ñun suñu gis-gisu politique ëpp na loolu li ma la fi jot a wax ci wàllu vision ci wàllu développement ci wàllu encadrement du développement du Sénégal euh, et continuer le poursuivre bi nga xam poursuivre li nga xam ne mooy politique publique yi président de la République ak gouvernement am impulsé depuis 2012 ak résultat yi ñu wax yi ñu xam loolu mooy sunu priorité waaye waxul traficu visa ak yooyu wax dëgg yàlla pour ñun euh, débat publiku Sénégal moo gën a mag loolu surtout nag su fekkee ne dañu am ay vidéo yu kenn xamul yuy taxawal yu nit ñi gis loolu comme ni ñu ko waxee sànq yéene wuñ ko kenn da ngay am sutura ci sa démarche. Ah da ngay am da am da ngay am xam lu rafet nga di ko def. Mm-hmm. da ngay da dangay da nit da bañal sa bopp lenn li. yéen seen gis-gisu politique weesu na loolu xanaa moo tax fii Dakar yëngu ni ak élection yi ñu dëgg mën la waa yéen ngi xëccoo seen biir de nan la fa demee noonu Diouf Sarr bële Amadou Ba ñeneen ñu noonu. waa ñooñu tiital na leen loolu la ñu wax. waaw waaw non xëccoo politique nag ci base moom loolu loolu lu normal la. Ah, ville de ah waaw ville de Dakar c' la c' est la capital ah ville de Dakar euh, ma di la fàttali ne euh, depuis à part 2014 élection yi fi am yëpp majorité euh, du du du Sénégal majorité présidentielle moo ko gagné. Mm. ñoo ñoo gagné le référendum ñoo gagné le législatives. et les présidentielles ñoo ko gagné. ak résultat yu seer ah résultat yu seer dëgg la mais terewul ñun du local benn fi am 2014 fi am mi ngi doog amaat léegi kay nañ dem ba xool rek waaye ñoom xam naa ne euh, gannaaw balaa ñoo dem ci làmb ji nee nañ dañoo sàcc dañoo sàcc résultat bi ñoom nangu nañ nañ daanu ba pare noonu la demee su ko defee rek ñu dem ci ànd ak dal li ëpp solo mooy préserver le legs démocratique sénégalais ñun Sénégal dañoo am chance am sens dugg ci dëkk boo xam ne c'est un état de droit il faut ñu xam ko sooy xool li xew autour du Sénégal da ngay xam ne Sénégal c'est une chance dañ ko war a préserver li tax ñuy préserver ko nag mooy am ay hommes politiques yu mat yu mat mat goo xam ne du ñu fooye liñ leen dënk du ñu fooye opportunité yi leen sénégalais yi jox di leen déglu su ko defee ñu dem élection ku nekk la nga am nga indi ko te ñu dolli gëm ne. fii élection sénégalais yi ñooy ànd ak yow wala ñu bañ a ànd ak yow noonu rek la demee su ko defee ñun plus que jamais li ñu yitteel mooy le rapport ak relation bi ñu am ak sénégalais yeeg askan wi. est-ce que Moussa Diouf day nekk candidat ci localité waaw yow tamit sëñ bi su ma waree nekk candidat tam xam nga ne mun moo ko wax fi mu toll nii. ah yow yeneen morom yi ñu ngi wax de. déedéet bu ñu waxul ñu ngi envoyé ñu leen di waxal. waaw am na ñu may waxal xaw ma fan ak fan waaye loolu moom ku nekk xam nga ñi ñi la sopp dinañ la waxal. waaye li am solo mooy consigne bi niñ ko respecté ba nga xam ne ku nekk aussi euh, le moment venu ñu joxe consigne et puis lu am solo c'est pas les égos ak les ku nekk sa sa sa mën a mën a gi baax na mënut a ñàkk ci politique waaye li ëpp solo mooy projet yi ak équipe yi nga xam ne ñooy dem pour transformer les municipalités loolu moom euh, dafa am loolu moo loolu moo ëpp solo. mënuñu fee jóge sans wax ci institution bi la jiite nii lan la wax ginnaaw dégg nañu fan yi kii nu mu tuddati euh, entrée touristique Sénégal destination Sénégal yi dafa wàcc lan nga ñu mën a expliquer exactement. tourisme bi mi ngi dund situation bu jafe ndax euh, wax dëgg yàlla suñu demee ba ba ba bëri ay restrictions ci voyage yi bëri ay restrictions yi sax am na buñ ci dindi. Euh, notamment principalement les restrictions sur les pays émetteurs là euh, loolu dina facilité affaire yi mais it interdiction de rassemblement yi léeg-léeg moom ay vague Covid yu jóg wàcc loolu yëpp tey day toucher tourisme ay tourisme événementiel concert amul yooyu yëpp di ñàkk am dafa dafa toucher le secteur du tourisme dans son fond mais le le sénégalais ak les acteurs touristiques sont résilients ñoom ay ñoo xam ne lañ euh, ñu yàgg am expérience lañ et am nañ yaakaar ne ñu relancer le tourisme et on va tout faire pour les accompagner jaar ci nag li ci ëpp d'abord ci tourisme interne ak tourisme sous-régional et puis digitalisation également de de la promotion touristique principalement loolu daal la ci mënoon sànni du ci lu gàtt. voilà ça a été un plaisir.